du ko rafetlu mais surtout di leen jaajëfal ndax ànd soxali cité marine lépp luy jëmale gox bi dëkk bi ci kanam ñi ngi ci dugal seen lox du ci lii rek la ñu tàmbalee démb ak bërki demb gis nañ ci ay set setal gis leen ci assainissement gis leen ci dajaloo même ñi fi wàññeeku ñu dajaloo di leen ñaanal donc lépp loo nga xam ni itte doomu aadama la te mu safoo ko di ko jëriñ fii ak ëllëg ñu ngi ci yàlla mu mën kàttanan yàlla na leen yàlla kàttanan yàlla na yàlla àggali seen mbébét ak seen ay yéene bi mbas mi amee ñoom dañu taxaw seetlu nii ñun naam ñu ngi dugal suñu loxo ci gox bi pour mu jëm ci kanam mais ban taxawaay la ñu war a am pour sensibiliser suñu mag ñi suñu kilifa yi suñu wéyjur yi suñu njaboot looloo tax ñu def caravane bu mag bi fa ñu waroon àgg sax ca njëlbéen ba tey dem nañu ba weesu ko dugg nañ ci gox yoo xam ni au début sax bokkuloon ci programme bi loolu yëpp pour yéenee bu yaatu bi nga xam ni am nañ ko ci askan wi def dafa naan liggéey bu mucc ayib la ndax comme que dañuy wax ni transmission bi defu communautaire la lutte ne peut être que communautaire et ñoom loolu la ñu xam moo tax ñu dugg ci gox bi dugg ci kër yi wax ak mag ñi wax ak ndaw ñi wax ak képp koo nga xam ne war nañu wax ñoom pour ñu mat jël matuwaay yi nga xam ne moom la ñoo mën a jël ba feebar bi dellu ginnaaw vraiment c' est une grande satisfaction au nom des population au nom du maire au nom de tout le sant ak ngërëm ñel leen yàlla yàlla fay leen yàlla jàppale maire en tant que maire aussi euh, gis nañ ni institution bi nga représenté def ngeen ay initiative yu bëri ci bi bi commencé ba léegi jii tey lan mooy situation bi ci commune Dieuppeul-Derklé la situation parfois bëggumay nekk ci situation personnel de santé parce que am na xibaar yoo xam boo ko waxee effet contraire la indi day tiital ñeneen ba jaxase leen li am solo mooy jàngoro bi mi ngi fi damay bañ ñuy stigmatiser naan fii laak du fii kii laak du kii loolu mën na yàq lu bari li ñu war a jàpp rek mooy jàngoro baa ngi fi naka la ñuy def ba mu jóge fi naka la ñuy def ba ñi nga xam ni dalu leen mu bañ leen dal ñi leen dal ñu wane leen ñu dem faju ji ba wér loolu mooy solo bi defe naa ne discours boobu lañ fi joxe sant naa yàlla bu mu ñëwee fekk fi ñoo xam ne loolu seen liggéey la seen xel ak seen xam-xam màcc na ci loolu ba joxe nañu le bon message ndax xeex bi dafa am noo koy xeexee boo bàyyee yoon wi rek la nga doon xeex xëy na mën na dellu si sa yow moo tax il faut ñu am ñu ñuy taxawee ci kàddu gi ak ci taxawaay bi pour bañ a tiital nit ñi waaye artu leen ba taxawaay ba ñu war a am ñu am ko. donc euh, monsieur le maire bu loolu weesoo euh, terrain bu ñu nekk nii ñu ko woowee terrain mbarak. Mhm. xale yi sopp nañ ko lool. Euh, bëgg nañ tamit mu am yeneen xar kanam est-ce que mairie bi projet bi mu amoon pour defar fi mu ngi ci ba léegi ak kañ lay commencé. weesu nañu foofu sax ndax cité bi. liggéey nañ ci ba wane benn modèle boo xam ne ñoom d'accord nañ ci ni lii buñ ko defaree dana baax ci gox bi waxtaan nañ ci am na ku ñu fi indi woon ànd ak moom ba mu indi gason pour lal ko sax waxtaan nañu bërki démb rek la ñu tase donc xam nga comme que dañu bëgg def partenariat il faut que ñun ñu def délibération ville de Dakar def délibération bu boobaa bu délibération concordante yi amee incha allah projet bi dana judd yàlla na ko yàlla matal ndax bu ko defee njariñu ñëpp la njariñu gox bi yëpp la